jour bi ay chef tukulóor Les femmes sénégalaises de Bilbao présentent Wally Balago Seck à Bilbao. Attention, Bercy Bilbao. Le 5 juillet, fan la Santana 27 Fever Bilbao Vizcaya. Co-organisé loolu ñu ne Fama et Rama doomu ndeyu Penda Naar yi sponsor officiel restaurant Tangana PDG bi di Soxna Khady Fatou Cissé Madame Sall responsable Ami Salam marraine yi Kër Belma boutique PDG ba di Fatou Dian parrain ba Djilignan Rosa Zaher Diabira restaurant La Saint-Louisienne PDG ba de Bijou Mbayang Khoulé Dine Khoulé ASC Bakhyaay présidente ba di Anta Ndongo Touba Cosmétique PDG ba di Fatou Seck restaurant Sénégambia responsable ba di Astou Cissé restaurant Te Baobab responsable ba di Maman ASC Teranga président Abdoulaye Wade ASC Bassori présidente ba di Binta les astuces de Ramitag PDG Ramathoun alimentation Mam DG ba di euh, soxna Aram kër-këri dag dagi waaw waaw du wadi borom kër Wally Balago Seck à Bilbao le 5 juillet 2024 infoline 34 63 22 97 541 34 60 28 14 193 wala 34 63 28 29 272. mon ami eh Jimbori mon ami sama xarit bi mais mon frère ziar naa la Jimbori. ziar naa la naka yite yaa ngi mais eh, leer da ngaa génn néeg de. non da nga leer de macha allah. mais ñoo ngi lay bëgg bu baax. borom Sénégal borom àdduna. kenn du ah, yow. non kenn du yow parce que yow macha allah sa chroniqueur dafa am solo parce que da nga andiwaat ñu bari dangay ngay andi démb. ba pare ku déglu coow day ji la xam-xam. vraiment sénégalais yi bëri ba man mi di wax yow yaakaar yow. am na ku ma woo koo xam ne nekkul sax Sénégal ne ma numéro Djimboor laa bëgg parce que damaa gis boppam ci ay wax ba ma jox la numéro mhm. mu ne ma ginnaaw yàlla yow yaa defaraat sëyam ah. wax na ma ko xam nga dara ah. dëgg loolu dëgg voilà kon tey macha allah mais nga jógee ci ngénte bi dañuy waxtaan tey muy ngénte bi ak yenn actualité mais li ñuy wax euh, dañ lay ndokkeel rek la ñaanal euh, liir bi embarqué euh, macha allah màgg ba jëriñ ay waajuram mais tey tey tur bi ñu xam ne ñu ñëpp jàpp ne tur bi da ko dippee Papa Thione ku xam Jimbori ak Papa Thione yàgg na du tey euh, tey lan nga inspiré wu ba tax ngay topp Papa Thione ba tey nga am doom ak ni mu mel nga jël jéggi ñëpp tuddoo ko Papa Thione lan moo waral loolu. waaw mais xam nga Thione Seck moom dama ko yàgg bëgg rek ba pare xam nga yàgg ko déglu buy daan way way temps yi nekkee booy may yor kaset bi di si déglu di inspiré wu xam nga di ci jël lu bëri est tamit tamit. wax dëgg yàlla defarul fi sama dund dara parce que ko xam ne dañ koy dégg lu mu wax nga topp ko tamit ma ci topp ba heure bii loolu la rek xam nga et jaaga moom sama hmm. jaaga oh. yàlla te xam ne hmm. jaaga na lépp hmm. xam nga ngente li euh, yëpp yëgal ko sax waali waaw xam naa garamal yëgaloo ko waali non dama ko bëgg wan ni yaayam def na lépp jaaga nekk fi mais jaaga def na lépp allahu akbar kon loolu mooy mën sa kanam mën sa ginnaaw waaw non jaaga def na lépp parce que li ma jaaga defal man wax dëgg yàlla li mu daan nee si man ak yëg-yëg bi mu am ci man loolu yàlla na ko ko yàlla na ko ko yàlla prendil fayee ko ko àjjana àjjanay firdaws te xam naa ni dina fa dem wax dëgg yàlla parce que waali fan yi gis ngeen mu def lu bëri te yàgg naa leen wax ne leen waali nii du dara li ma xam man si lu yaayam daj yaa ngi dégg lii yëpp ay lancement la. waaye dégagul dara daal. non moom du ci dara. Mm-hmm, du ci dara demul dara bu doon moom doom dara du xew. dara du xew mais lépp jaagal. lépp jaagal wax dëgg yàlla. ndeysaan te leer na ma ne tur bi tur bi yaa ngi ko nekk góor mais bu man xam naa ne voilà. jaaga kon daa mel ni jaaga nga ko rek. jaaga mooy Papa Thione Papa Thione mooy jaaga. waaw waaw jaaga sa waay jaaga daal yàlla nañu ko yàlla fayal daal. man sonn bi mu doon sonn ci man tabaski bii paase dafa ni waali mu jox ma xar xaru un million lañ ma jox. ndeysaan. ma yeew ko fi gisi samay naw li ndeysaan wax dëgg yàlla. Ah, waaw waaw waaw euh, vraiment. jaaga sigil na ma. léeg-léeg luyaas mu jox ma ne ma fayal. Mm-hmm. parce que dafa pare ne ma bu mu ko déggee bàyyi la. benn bis xam la ma gis ci moom. Mm-hmm. loo xam ne jaaxal na ma. si laa xam ne jaaga mi wérul. parce que daf ma waroon mu jox ko keneen mu envoyé ma ko rek ma xam ni jaaga yorul parce que lu mu lay jox du bëgg ku kit keneen xam ko oh. kon bu ko joxee nit rek si la laa doon commencé nag di dute di dute après benn bis ma gis Alioune Seck fële Gambie si laa ko laaj jaaga mu ne ma jaaga dafa feebar oh. te ci biir feebar bi laa wax de chauffeur bi mi may dégg chauffeur bi la jox mu envoyé ma wax dëgg yàlla kon nit yoo xam ne dafa dafa dafa wér di di joxe feebar di joxe kon kooku dafa naa kenn kenn kenn amul fayam daal wax dëgg yàlla uh-huh. man nag waali yaayam laa ko jàppee yaayam nga ko jàppee waaw wax dëgg yàlla moom nag jàpp naa ko mais wax dëgg yàlla hmm. xam nga Euh, wax dëgg li olof naan bu ñëw di xàll tubay ju rëy mhm. doom jaa tax <laughs> waaw ba pare xam nga coon seeg mhm. ak euh, ak jaaga mhm. lebal nañ leb leble nañ ci pénc bi lu ñu ko lu ñu leen lu ñu leen mën a fayee ci seen doom yi ñu yéene leen lu rafet daal wax dëgg yàlla waaw walla macha allah mais bu jógee foofu rek dem ci actualité gis nañu coow li temps yi bari na ci diggante euh, gouvernement bi Ousmane Sonko Diomaye coow li bari na fi ci côté góor jigéen ñu ne dañoo Ousmane Sonko dafa dafa recevoir benn góor jigéen fële ca université ba sénégalais yëpp di cee di ci ñu ne waru koo def ñu ne war na koo def est-ce que war na recevoir euh, koo xam ne góor jigéen la ci réew mi wala. waa xam nga réew moom pour man ah euh, pour man ki mu recevoir dëkkul ci réew mi nekkul ci réew mi beneen dëkk la jóge waaw beneen dëkk la jóge mm-hmm. du dëgg. kon bu ñëwee ndax Ousmane Sonko dañ koo gis mu mu mu jël nangul góor jigéen ne dañuy dañuy nangu loolu defagu ko mais liñ comprendre mooy gouvernement Macky Sall moo daanoogul ba léegi xanaa am la nguur saa bu daanoo dina def deux ans nguur gi doog a daanu bopp bi moo dañ mais yaram wi mi ngi ñi daan waxal Macky Sall ba tey ñoo continuer di wax te wax bi ñuy wax yëpp bëgg a convaincre Amadou Ba te Amadou Ba bu inspiré ci loolu ba téye ñooñu musiba daal ko. yow euh, li nga xam ne Ousmane Sonko da ko def recevoir góor jigéen da nga da nga da nga da nga jàpp ne war na ko mën a recevoir. waaw mais tey Idaly ma wax la dara. góor jigéen yaa ngi fii ci dëkk bi. non waxuma ñu ngi dëkk bi de. yaa ngi dégg. waxuma ñu ngi dëkk waaw est yow wax ngi dëkk bi mais est ce yow di nga di jigéen. dinaa toog nga xam ne kii góor jigéen nga. mais am na ñoo xam ne. ay daal waaw ma am na ñoo xam ne ñu ngi fii ñooy dimbale goor jigéen am na ñuy dimbale góor jigéen. non yéen xanaa am loolu li ngeen xam. kon da wala oh, xam ci góor jigéen. mooy ñii wi taxu. waa léegi waa ñii wi taxu ci gën a. damay laaj kon d' accord nga Ousmane Sonko def. am na nga ni d' accord rek. mais dama ne. mais pourquoi bi mu ko recevoir. bi mu man waxuma damay laaj rek. non ah, attends question la ko recevoir. waaw fi nga xam ne moo di université. waaw bi kooku waxee ba pare. ba ne dama ma maa daganal euh, fële euh, Europe réew euh, jigéen góor ak góor di takkante waaw dañ ne en fait euh, euh, étudiants yi dañoo tàccu. waaw ah. waaw loolu message boobu di jàll foofu est-ce que. baax na maa daganal Europe góor a góor di takkan. waaw mais ndax daganal na ko. mais est-ce am na droit ñëw fii toog ak ñun. ñu relever ko. waaw mu ñuy wax loolu. damay laaj. mais xalaatam la wax. non mais ah ok. xalaatam la wax xalaatam la tey ma wax la dara yéen boo leen bëggee toog ñu Sonko du am ak relation international yéen jàpp leen ni amu leen dara kir naa mosoo leen ko liggéey ba pare réew mi xam nga lu ma gën a jaaxal ci réew mi 1960 ba léegi yéen a ngi werente seen loi yéen xamu leen sax loi buy daw ci dëkk bi sénégalais yi 1960 ba léegi dañuy werante lii loi bi loi bi loi bi ñuy werante parce que kenn ku ci nekk xam nga loi bi lan la kooku dëkk fi dëkkaanu fi bokkul ci réew mi wax dëgg yàlla mais day ñëw dem yoonam dëkk fi mais yow loolu amul sens pour léegi euh, sëñ sëñ sëñ Bada bi nga xam ne da cee dugg euh, attaqué li nga xam ne moo di Ousmane Sonko. Ah. attaqué euh, ki nga xam ne moo di Pambay euh, ba tey gis nañ ne Pambay laay fal ko lan nga ci wax la ci loolu. non xam nga sëñ Bada sëñ Bada la quoi ah Bada moom Bada wéef la. a ah, dalay laay fal nga wéef comme Baye Moussa. kon Bada day jël wéef. kon Bada li muy yokk pour du pour. jëlkatu wéef la Bada amul sa ay argument. pour poosam la. ay Bada dafa am ay argument. mais yaa attaqué Bada de. boo tax am dama bëri bu la gontalee nga am. déggoo ma xoola moom gont liñ ko gontal ak xëyam rek daf ko doy fekk. ku fanaanoo yuut boo xëyee di nga wàcc. ba da ñu ngi ko song ay pambaay ay góor jigéen di ko song di ko coow ak moom. xam nga man mais moom de man Pam Pamadaar gi la àndal parce que Pamadaar Jamra la àndal parce que. moom Madaar Gueye Jamra. waaw parce que moom Madaar bu leen daal day ànd ak Sonko wala xoola moom Madaar du àndinul moom yàlla tegu ko fi yonent tegu ko fi moo fi teg boppam. mais day xeexal euh, l'islam. Eh, l'islam nan lañ koy xeexalee. ah mais l'islam dagalul góor jigéen. non dama laa laaj xam nga maam Matar ma wax la benn affaire. góor ah, jigéen affaire maam dama ne oh, déglul wax la xoola temps yële temps yële ma wax temps yële ma wax la benn waaw oh. maam Matar xoola xoola wuy ma maam maa ko woo. ne ko maam Matar su ma ñëwoon de mun naa laa jàppale. ñii saaga kat yi ñu génnee leen génnee fi lu bëri mu ne ma noo koy defee ma ne ko dañuy def ku saaga ki publier saaga bi ñu jàpp kooku tëj ko saaga yi jeexul waaw bi ko Ndeye Gueye woowee ne ko dama am problème ak diw ak diw ak dafa ñëw ci télé bi di ko wax noonu la ñuy réglé problème mu diine lu la waaye wax nga indi ko ci télé bi xoola léeg-léeg su fekkante ne su fekkante ne jam jamra am na loo xam ne war nga ko mën a réglé en secret mais nekkul loo jot rek indi ci penc mi ba pare coow li dafa xaw a bëri Jamra ak musiciens yi Jamra ak ñi si mbedd mi Jamra ak waa non Jamra nag eh, Jamra li muy kaas wuyu ma jam li mi kaas moom la diine di kaas lan la moom la diine di kaas diine lan lay kaas mooy jigéen euh, góor waaw ah. ji góor jigéen yi ñëw ci réew mi. waaw ah. wala góor jigéen yi nga xam ne dañ ko bu daganal ci réew mi ah. loolu lay. kaas wala góor jigéen kenn du ci d' mais ba muy coow ba léegi ndax am na ci solution. mais yow man laa wax man. xaara man su ma jotoon récépissé jam la léegi ma arrêté lépp ndax barki salaatul faatihi récépissé bi su ma ko jotoon man suñu booyi dootuñ dem di nekk góor jigéen parce que amu leen ay góor jigéen ñu reew ngeen am ñu bëgg a teral seen ndey te ñu tàng yow tamit amu leen góor jigéen yéen góor jigéen Europe la am fii góor jigéen amu fi. amu fi daal wax dëgg yàlla xam nga récépissé bi da moom dafa waroon a jóge ci loxoom. ba pare kan ak kan ak kan mooy Jamra Jamra affaire benn nit la wala affaire mbooloo. non affaire mbooloo la. waaye affaire mbooloo la lu tax moom léegi kum ci kuy intégré man nii dafa ne ma da dinaa indi sa carte jox la ko nga nekk sama Seydina Omar yor jaasi ji luy loolu jaru ko. jaru ko man mii loo may indilee ay réseaux sociaux. fu dem yéen daal ku laal Ousmane Sonko daal ngeen jóg Ousmane Sonko. non non non non non non yow di nga xam ne yow. waaw exemple kii góor jigéen la. waaw nga recevoir ko sa kër wala sa salle di toog di waxtaan ak moom. laaj dama laaj yow xam ni lakkum diinu kum wala diinu da nga may tontu ba pare donc man waroo ma damay la ko xam yow di ko def yow wala xam naka xam ne kii góor jigéen la nga recevoir ko sa waaw léegi dama ne dama ne relation internationale yi ñi nga xam ne da dañu am ak réew mi ay affaire réew mi di joxalanteeg ñoom koom-koom bi di jàll tey mat su football waaw koom-koom dafa mat su football yëpp góor jigéen ñoo ko sponsorisé loo fi gis kon nangu nga daan ah. kon Ousmane Ousmane Sonko li def kon lan nga ko jëlee. mais Ousmane Sonko ndax kooku dafa ñëw ak pour taxawal ci góor jigéen. non mais même bu taxawal góor jigéen moom la rek. waru waru est-ce que war naa voilà danga may déglu waa APR yi. ñoom ñoo daanu ba pare nanguwuñu daanu. man du ma du ma APR du ma Ousmane Sonko du ma kenn damay wax rek. mais am loo xam ne rafetul ci réew mi continuer di def nekk ci réew mi lu leen neex wax lu leen neex def seen affaire jeex na. seen affaire jeex na. Ah. wax dëgg yàlla ku si wax loo war da wax dañ lay denc. ay denc kenn ragalu fi denc. kenn ragalu fi denc mais dëgg la ñuy wax. kenn du tooñ itam nangu ma kuy tooñ. kii waxul loolu Ousmane Sonko de dafa toog ni jiiñ Ousmane Sonko góor ak góor. non waxuma kooku man waxuma kooku loolu dama ci wax waxuma kooku man. mais léegi kii Sonko dafa ñëw waxtaan ak moom. si lan lañ doon waxtaan si koom-koomu réew mi. waa ji xew na. koom-koomu réew mi. journaliste bii du toog boo xamee ne kii góor jigéen du ko recevoir këram. kan kii man mii du ma ko def yow doo def congaan mii du recevoir góor jigéen bu xamee ne kii góor jigéen du ko recevoir kër ah. ñun diine dëkk bi laax daa am lu muy toxee léegi yow kilifa diine yi Ousmane Sonko Ousmane Sonko Ousmane Sonko Ousmane Sonko ban intérêt la am ci ban ah. intérêt la dem ay góor jigéen recevoir congaan nee na bu dee congaan bu dee ay milliards na ko recevoir non déglu ma wala déglu ma ah, wala yaa ko ban intérêt la am góor subhanallah ama ne combaan de wax na ne combaan bu dee góor jigéen bu am intérêt ci moom na ko def ma ak ni nga mel yow Italie damay dem dama am Italie damay liggéey waaw Italie ñu ma wala ama ah. ne ban intérêt la Ousmane Sonko am da nga bu doon Ousmane Sonko la Ousmane moom kese du jël góor jigéen di ko def safaan góor jigéen bi ci lan la ñëw si ban contexte la ñëw lan moo tax mu ñëw ci réew mi mais xoolal a contexte mu mën di ñëw bu mën di ñëw dañ ko réviser kon contact boobu. xool beneen xool beneen kon léegi ki fi nekkoon ñu ñu ñu rey ay jullit ñu rey ay jullit ñu dem rey promotion bu mag Macky Sall dem di mars est-ce que waxoon ngeen dina xarlu lool ku dessin yonent bi. waxoon nañ ci kay. ah waxu leen ci moom parce que nguur googu dafa tàngoon jër ku wax ñu tëj la ci kaso bi mu rey juróom-ñaar fukki nit. jërëjëf émission bi jeex na waaw jërë ngeen jëf. ah ah jërëjëf ah, waaw. jërëjëf yow moom yow moom li ma la. naar yow ku la Ousmane Sonko foog ñu wax dëgg nag Ousmane Sonko nit la foog ñu koy wax nag ah non jimbo li mu wax ne recevoir góor jigéen Ousmane Sonko li mu def recevoir benn góor jigéen est ce que war na ko wax en tant que diine non doon defante dama dégg ñu wax ko man xaw ma góor jigéen la xaw ma góor jigéen voilà Mélenchon du góor jigéen mais li nga xam ne moom moo di loi wu góor jigéen yi koy défendre li ñu bëgg parce que moom candidat la France opposition euh, opposant la ak Macron. moom lan la wax mu ne. mu ne ma maa mu ne maa xeex góor jigéen ñi ba ñu sëyante. yéen nag góor jigéen la nga def. non déglu moom dafa wax ne. moom moo xeexal góor jigéen ñi ba ñu sëyante. waaw waaw moom ku bon am na droit ñëw suñu réew. mais waaw déglu est am na droit ñëw suñu réew. ñu yóbbu ko ci université fi ñuy jàngal suñu xale yi. muy wax ak ñoom. ba dugg non ba dugg ci loolu góor jigéen est-ce que droit. je yi ak étudiantes yi war a am bi Ousmane Sonko rombee bërëb yëpp yóbbu ko ci temple de savoir boobu. non mais est-ce que baatu góor jigéen góor jigéen encore. mais est-ce que waxuma dafa ko góor jigéen ci kàtt ki mu recevoir nit la koo xam ne opposant la fële ca France dafa bëgg a jiite France nangul naa la lool bu ñëwee di waxtaan ak teg est-ce que xam ngeen ni waxtaan bi Ousmane Sonko doon woon góor jigéen am na yeneen débat yu ñu ma démentir waa après nag góor moo doog a ñëw nag waa léegi est-ce que foofu moo góor jigéen am na fa dara moo la bien mooy ah, am na fa nee na ko phénomène góor jigéen nag fii ci Sénégal waxuma la pareeguñu non est-ce que est avant mu ñëw waru koon wax ne moo góor jigéen bu ko tudd wala nangam. mais bu ko bu bi euh, li ma wax rek moo tax moo ko rek. waaye Sonko du góor jigéen. non non non waxuma waxuma la lool de. waxuma la boo mu man daal tey jii lay taxaw di défendre góor jigéen. waaw mais ba mu ko ba fi may waxee mooy sénégalais fi ñu waxee mooy ba mu ko remercié warutoon kon recevoir koo xam ne day wax ci mu orum góor jigéen. loolu lañ wax kon nga baal Samba Dembe Nefee di défendre góor jigéen ñi Idali amoo droit ci ci lan. waaw waaw Samba Dembe def du góor jigéen mais day défendre ay góor jigéen. Ah. amul droit amul droit invité ko. non défendre jigéen moom dafa. doo ah, xaar xaar xaar défendre góor jigéen la non défendre jigéen moom. dafa ñëw défendre goor jigéen pour ñu takkante. day protéger les intérêts des góor jigéen non góor ak ji góor ak góor kooku kay ñoo ñoo ñoo benn la ñoo yem. ah mais moom deful acte la wax. lan la wax boo góor ak góor ñu koy jëf fexe leen ngeen mat ñaata. ay waxuñu loolu. ñun yow xam nga may waxee. waaw loolu wax loolu. mais góor buy def ak góor loolu góor jigéen. mais mélangeo da nga xam ne war da koy defam du ko def. waaye waaw léegi ok jeex na man xaw ma sama néew. waaye léegi yow jeune bi jeune bi jeune bi kañ ngay dem. jeune bi sama sama yóbbante dama dama war a joxe ay keccax ak géej gi jox ko Eva euh, mu ngi mu ngi dix-huitième yow laa ko war a jox nga yóbbaale ma ko. léegi journaliste yi dem bëri na trop jeunes Sidy Diop bi xam naa yéen ñëpp ngi dem daw ngeen cee dawa dawa dawa daw ba ñàkk seen seen visa presque yaakaar naa est-ce que lën lay génn yéen ñëpp lën na génn. yow rek laa ci xamagum instant mais tournage yi bëri na ñoom Gallo eh, ñeneen ak ñeneen Gallo mën naa ko tudd. ah mais sama yóbbante léegi dafa bëri yow dama koy jox dama bëgg xam sa départ. d'accord léegi ba toll. waaw le cas de Zénith. ñun on est des euh, des animateurs promotion musique sénégalaise la ñuy def promouvoir ko donc Sidi Diop c'est très normal Wally bu doon def Zénith. ñii ñu taxaw non dañuy. ah ah am toll Irak damay am toll nag. Wally bu doon def Zénith ba muy def Bercy. dañ cee taxaw xam suñu tànk dooy fu mu dem ñu dem ànd ak moom lu muy wax ñu wax ko donc Sidi Diop moo aaye force ñu def ko beneen moom mooy Zénith ñun ñu dem ak ñu toog intéressé wuñu xam nga moo ñu intéressé communication bi jàll ba Sidi Diop dem am ndam amee ndam dañu fay communication am ndam dañu fay communication kenn fayuñu communication non kon yéen du ngeen di professionnel non non c'est pas vrai kuy fay la doo waali bi muy kii fii amul kenn ku waali amul kenn ku ci wax ku ci wax ñun ku ci wax lu ma taxaw génn vidéo yi nga am génn ku ci wax lu ma taxaw génn vidéo ni ngeen def nii ni ngeen def nii ci dënd bi suñuy géem yi fuur wuy ma bàyyi loolu visa yi rek kon xam naa lépp kon yéen du ngeen di procédé Sidy Diop dañu koo fay de fa dem waaw Sidy Diop dañu koo fay fa mu dem de waaw déglu lan mooy professionnel lan ngay ñëwee événement jaa événement waaw déglu événement boo xam ne ay millions moo ci génn nga ñëw di ci wax ci air bi noonu te fay ñu la amoo benn entre wala di ko def donc média dafa damay laaj donc média wala animateur damay xaar ñu fay ko pour mu def non li non comme communication bien sûr ah non communication. animateur lan mooy rôle non waxuma la animateur. Eh, animateur dañ la faa teg avant lan mooy rôle laa bëgg a ma dafa am programme boo xam ne da nga leen waxal ci lii. Ah, déglu ma rek kon Waly bu la fay loolu non déglu ma Waly di wax ba ŋàllee sama sama wax sama papa la waay bàyyi ma papa wax sa papa kay garaawul yaa ko mag ma du waxu li ma li ma gëm mënu ma koy gëm dama la communication laa la wax. communication. non amul far yàquma. kii ma yow yow yaa saytaane loolu laa man de yow da ngaa saytaane rek waxuma loolu de. que communication communication ma si sama frère dama ko ñaanal mu fees. dama ko ñaanal mu fees dellu si ma saytaane mais dama la communication bi ngeen def la yéen ak ni ngeen ko jëlee au sérieux barke alxuraan jëlee ko au sérieux pour noonu wax nii rek rek rek. man du ma dof. ñe waaw yow waaw d'accord déglu ma du ma la nangul xamal non du ma nangul xamal doo ma waaxu parce que yaa ma gën a kii doo ma waaxu doo ma waaxu. ma lay waaxu. ñoom Galop. waaw dégg naa abay nañ seen yow abay nga sa passeport kañ non dañu waxtaan rek. man sama dem ci loxo yàlla la. waaw mais affaire nga passeport waaw visa waaw xam naa visa waxuma kenn. yàlla bu ne jaaññaat day dem seen i liggéey. waaw naa mais visa kenn visa man dem ak toog sa passeport kañ nga premier pass bi kañ premier pass bi. kan kan. Ah? Madaar sama gànnaar waxuma waxuma Madaar de. waxuma Madaar de. dama ne Madaar mooy Madaar sama gànnaar maa ngi numéro am. barke Yàlla Madaar sama gànnaar maa ngi numéro am mu ngi sama numéro wala. non dañuy def dañuy teew. parce que gis naa Faramaren ni ñu ci jàppee. waaw dañuy teew mais tontu ma fa de. non Sidi suñu suñu parce que suñu poulain la baal waxal la ko parce que suñu poulain la Wally Wally Wally Wally frère am la comprendre nga patron la ci musique bi kon boo amee ndam waale am ndam ñun ñoo am ndam loolu la ñu ñaan mais waxuma ndam bi ndam bi ci kattanu ci kattanu yàlla si day am ndam voilà ci kattanu yàlla si day am ndam si day am ndam mais man départ bi laa bëgg a xam journaliste yi yéen seen départ hmm. ak le premier pas bi nga envoyé kañ nga ko envoyé <laughs> loolu laa wax ba pare moom wax na ma na kan ah day dem kooku day dem ah kooku day dem ah non mais yow bu ko far départ la waaye yéegal demal demal. moom moo ko da nga naan yéegal amoo <laughs> oto. Aliou Ndiaye Aliou Ndiaye li nga jox ma la oto Aliou Ndiaye. xam naa la alburax nga nekk alburax a mu ngi nii man bàyyi sagal na ma man fa laa sànni caay bi <laughs> non càmm moto càmm moto nga ma woon càmm moto. càmm moto nga ma woon non càmm moto la. mais smart la caabi smart la ñu ko ñu xam. ah eh, eh, eh, kon waa Jalle Kalando. Kalando non Kër Masar lay yëpp. 1000 francs Kër Masar Faduwa Kër Masar. Irani dafa goma si site internet. Faduwa 3 ans yàlla sagal na ma maa ngi sant ba. Faduwa Kër Masar ngay yëpp dimbali na ma. mais loolu liggéey la sax bàyyi sigil na ma loolu liggéey la. waaw mais dara xam nga boo ñëwee ci organe bu mel ni Albura nga ñëw mujjee ñëw. organe bu xaw a ndaw. mu ngi dab gaay de mu ngi yéene wax de yéen a a xaw a dab gaay de. léegi ngeen dab kili Dakar de. léegi ngeen dab kili Dakar. kili Dakar nekk nga 10 ans alburax doo ko ñëw te li alburax ñëw dafa nag de. Ah, ah. damaa ñëw samp. un laa commencé un laa commencé un laa commencé. te dégg naa am na oto jàmbur boo luubal. <laughs> dégg nga baal oto jàmbur laa commencé boo laa commencé un. ndax maa wan laa commencé. kër ah aji di ma fay salaire ba noppi teg ma si condition yi. mais dégg naa da nga da nga da nga war fii Dakar dégg naa. non man moom ah, tu vois non non. dégg parce que amatul relation parce que ni ñu ko moo ñaaw. non dañu waxtaan rek fii ah, Dakar ni ñu ko moo ñaaw dégg naa. Ah, ma. fii Dakar ni ñu ko jógee ni ñu ko jógee moo ñaaw man nii laa soxla. fii Dakar dégg ni bu ñëwee daa ñaaw amatoo relation ak ba mënoo ko woo téléphone mënutoo woo téléphone. Maram Diop encore noonu. <laughs> te loolu rafetlu si animateur. keroog yaay xab si vita ah! naan ko fi nga jaar bari na nangam nangam mais yow mi bamba nee na bamba waxuma ko waaw waxuma ma siddi de mais ni nga jógee fii Dakar moo ñaaw parce que man ba ah, jóge naa diaspora jóge naa diaspora te diaspora sama xarit la sama lépp la non man man kay xaw ma moom nga ma wax leneen mais ni nga fa jógee kay bind nañ ko topp kaa bind nañ lépp waay ah kon xama leer yaa def foo deful waaw d'accord mais foo jógee dara na rafet. deuxième bi moom mooy. Feeling Dakar daf maa la def li nga doon. waaw xaaral wax ñoo la def li nga doon. waaw du ma doon nga wax. parce que yàlla doo wax parce que ñoo doon amuloo wax. waay. wuy ma amuloo wax parce que amuloo. Feeling Dakar daf maa gis Sunugal 24. yittewoo woo ma ma dem. mais fa nga fa nga siiwee. Feeling Dakar laa nekk mu xaw a wàcc mu xaw a nga dem dégg naa yéen. man Dakar Live laa jógee chiffre chiffre bu chiffre bu mag yi. Dakar Live laa def déglu ma chiffre waxuma laaj ma. def sunu gaal 24. yow koy wër nga Sénégal la illa 32 sites 32 sites. ba Alboura donc 32 sites jaaroo Kili Dakar Kili Dakar jaaroo. am na ñu nekk ci site yi def fa 15 ans. Kili Dakar jaaroo Kili jaaroo Kili Dakar. Kili Dakar jaaroo fa. man non maa ngi maa ngi sant sama borom. alhamdulilah xam naa yaa ngi sant waxuma loolu. Kili Dakar jaaruma fa parce que dafa nekk amul sama fay mënu ma fay man nga ma fay. jege naa des jours bi ay chef du couleur Les femmes sénégalaises de Bilbao présentent Wally Balago Seck à Bilbao. Attention, Bercy Bilbao. Le juillet, fan la Santana 27 Fever Bilbao Vizcaya. Co-organisé loolu ñu ne Fama et Rama doomu ndeyu Penda sponsor officiel restaurant Tangana PDG bi di Soxna Khadi Fatou Cissé Madame Sall responsable Ami Salam marraine yi Kër Belma boutique PDG ba di Fatou Dian parrain ba chéri Rosa Zaher Diabira restaurant La Saint-Louisienne PDG ba de Bijou Mbayang Khoulé Dine Khoulé ASC Bakhyaay présidente ba di Anta Ndongo Touba Cosmétique PDG ba di Fatou Seck restaurant Sénégambia responsable ba di Astou Cissé restaurant Baobab responsable ba di Maman Teranga président Abdoulaye Wade ASC Bassori présidente ba di Binta Ndiaye les astuces de Ramitag PDG Ramathoun alimentation Mam DG ba di euh, soxna Aram. kër kër yi daf daf yi waaw waaw du wati borom kër. Wally Balago Seck à Bilbao le 5 juillet 2024 infoline 34 63 22 wala 541 34 60 28 14 193 wala 34 63 28 29 272.